weeru safarul xayr weer wi nga xam ne ci la Sëriñ Tuubaa génnoon ngir liggéeyali boroomam eh, liggéey bu yaatu bu rëy bu rafet bu sell sun bam nangu liggéey ba faye ko ci xéewal goo xam ne àddina sépp xañ na ci tey yokk waxtu nekk ba tax mu di ca sant yàlla waaye santaane ci liggéeyu cant ñu ngi ci ndokkeel ñëpp di ñaan suñu bam àggale ci bés ba ca kanam te man loonu ko dafa nu xéwlu yaatu ba mañ koo màggal màggalin wu dëpp goom ko bëggee tamu nangul nu ko yi dafa gu mag it suñu bam yàggal ko fi lool dolli ko ak wér ak kàttan ba mu àggale mboolem ay yéeneem ñaanu ko njaboot gépp waxtaan tey dañ koy sof rek ci waxtaan wi ànd sunu mbokk Serigne Sam Bousso defoon na ko ci ajuma ji weesu mu jëm ci fànn googu muy wataayu màggal ak jëmmi cant gi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa woote doon ko sant yàlla waaye sant itam nu sant li ko yàlla ku ne xam na ne cër bi ko yàlla jox tamit cër bu rëy da ko liggéey nam woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci am lu mu bëgg tam woon ne luy jaay la li njëg gi lii lay jar loolu mooy li ko taxoon a génn loolu itam wax ci lu bari bari bari eh, ci lay wax ne sunu Boroom ne ko rabbaytani xamsa wax wahdaka wala amali an jësta rabbi wax dëkka sun borom yaa ma yar diiru juróomi at mel nu yow képp ba yar ba sottee it ci atum ren mii lang ma diggoon lépp teewalal nga ma ko teewal gam ko teewal la lam ko diggoon lépp nag moo waral cant gi moo mel ni dem ngeen demoon ci géej gi dafa wàccoon di ganuk borom bi subhanahu wa taala tam berndeel ko bernde ju rëy bernde jooje it waral mu warlu ak cant ci moom ca lay wax naan diftuka yaa akramu yaa dal juudi yaa daaimal wuxuudi wal wujuudi acdamta yaa rabbi qiraaya fi lbuxuur waliyaxa saxarta kulla di duxuur laka alayya shukru fi duyuri faliyukun fiha wasid xuyuri gane si naa la yow sunu bopp mi nga yaay borom tedd nga ji di borom tab gi yow mi kenn te wéet waaye bi mu la gane see réyal nga lool sa bernde ci man ci géej gi bernde nga ma bernde yu rëy te tàggatal nga ma képp koy borom gu kon nag warul naa ak cant ci yow fii ci samay kër mi ngi Tuubaa ak Daaru Salaam te yàlla nag ma fi nekkal te dolli sama yiw waxit ne ko warul naa la ak cant yow sunu doom fii ci Daaru Salaam yàlla nag ma fi defal ak dal tayit maa ngi la ñaan nga defal ma ngeneel fii ci sama Tuubaa gii ci loo xam ne dana kawe njortu e, ci samay xemam jëf laka alayya shukru fii daari salaam fa habliya sukuuna fiha ya salaam tafaddalan alayya fi tuubaaya bima yafuuqu danna min ruhbaaya kon su ma defal na ko cay ngëneel loo xam ne euh, xeeb na ci cantuk boppam ngir màggaayam ak rëyaayam tax mu ñaan yàlla tax mu féetewoo ak cant waaye cant boppam doyu ko ca mu santaane ko euh, euh, loolu yi wax na ci lu bare bare bari ci cant googu yi eh, ca lay wax ne xaawaltu shukrallaahi fi turaabi baada jamila sabri fi iqtirabi maa ngi jéem a sant yàlla fii ci sama suuf muy Tuubaa ak Salaam gannaaw bu mu muñee muñ bu rafet ca sama tumuraanke googee ci tukkib géej gi xaawaltu shukrallaahi inda baladi wa kaana lillah wa safa xaladi maa ngi jéem a sant yàlla fii ci sama dëkk bii yàlla nekkal na ma te sellal na itam sama sax mu waxe ko ci waxin yu baree baree bare bari lépp di wane ne nga xam ne cant gi sax rëy gi mu rëy du ne maa ngi sant waaye maa ngi jéem a sant lay wax li ci ëpp maa ngi xaawaltu maa ngi jéem a sant eh, waxin ne suñ borom mi nga xam ne mooy aji des bégal na ma ci safar mbégte moo xam ne dootu ànd mukk ak ragal wala jenn lor tey jéggal na ma la weesu woon ngir jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam nag moom la ko safar bégal wala moom la ko sunu moom moo xam ne ak ak dootu ci topp da jéggal ko la weesu woon lépp ngir jëm yonent bi neen moo tax itam ma am yéene sant ko moom yàlla ci yow at mu nekk eh, ak weer wu nekk te def alxuraan muy sama sukkandikuwaay di sama ndëgër lay <coughs> basharani bi xayri taxwifin safar il muntaqa baaxil lima mada xafar waxin ne yéene naa ko sant kon ci at mu nekk ak weer wu nekk nawaytu shukrahu alayka kulla am wa kulla shahrin wal kitaabi li am cant googu it mu ko def ci anam yépp ko sant ci samay xalima dinaa ko sant ci leen lu samay kali samay xalima nawetu shukruhu nag mu yéen ci mu nekk cant gu rëy wax dafay fees dellu suuf cant gu fees dellu suuf fees dell asamaan te nekk ngeen ji cantukaan dafay gërëm loo yàlla subhaanahu wa taala nawaytu shukrallaahi mil al ardi ma sama xayra shakurin yurdi loolu kon muy cant gu rëy defe naa kon bu ñu demee tey ba fépp ci àdduna ñu defa màggal bisam bi ni ñu koy màggale fii ci Touba noonu lañu koy màggale ci Afrique ca Europe ca Amérique foo man dem ci na kon dinaa la sant cant gu fees dellu suuf lool mën na ko màndargal waa ah, ne ubbi naa buntu cant ci weeru safar yàlla itam teeyal na sama xol ci lu muy ànd ak jenn lor ak benn coona fataxtu baaba shukri fii shahri safar tayyiba nafsi doona durrin wa safar waxee na sunu borom noonu yi ma ko sante mooy itam gërëm na ma moom yi borom asamaanu suuf sant na ma moom yàlla cant goo xam ne màndargaal na ko ci mboolem mboolem gaa yu baax ñëpp xam ne ni sunu borom sant na ma chakarani sul aradina wassama shukran lada axyaarihi xadru sima gërëm naa ko moom yàlla waaye moom it gërëm na ma yow suñu borom gërëm naa la yow it gërëm nga ma bégal nga ma teral nga ma xéewalal nga ma radiyatu anka wa radiyatu anni bashartani bi karamin wa manni kon teraangay suñu borom yooyu nag ma waral cant gu réy mi sant wax na suñu borom sant sama lépp cant goo xam ne yéegal na ko ca ars ak kursi ngeen di yéegukaay boobee shakara kullillahu shukran yarqa lil arshi kursi yi ni'mal marqa mu wane ne rek li dale asasi muy atum junne ñett téeméer benn ca gàddaay gi ba ci atum junne ñett téeméer ak ñeent fukk ak ñett li ma yéene woon liggéey suñu borom yéene ko liggéey yonent bi sallallahu alayhi lépp matal naa ko waaye la ma doon yaakaar doon ko séentu itam ci yàlla ak yonent bi sallallahu lépp am naa ko ci diggante boobu yi muy diggante assassin ba jam sasin li jam sachin min assashin xawaytu fillaahi war rasuli maa moo tax mu ne na kon lenn luy lor dootu bàyyi ko ci wenn weer wala ci safar jëm si ci man tayit la ma yàlla tànnal lépp wàmmatu lu jëm si jamono ci lu muy ànd ak benn coono wala benn jafe-jafe lam yan xu ne fii adan aw fii safar wan xaadali maxtaari li safar mooy li yóbbu nag ci sant yàlla ak mbégte mu sax dàkk ak noflaay mooy sama sell goo xam ne mi tàmbalee ci atum junne ñetti téeméer fukk ñett ñaar fukk ñett mbagal ma tàbbi daani ila shukrin wa bishrin wa rahatin safaa'i ilal jannaati min ami jaksashi tax na yéene naa ko sant nag fii fi Daaru Salaam yéene ko sant ci sama too ci sama Tuubaa ci sama yaram ak samay xalima di ko sant cantu jëf ndax xam nga cant ñetti xeet la ni ko Sëñ Tuubaa jàngale cantu xol cantuk làmmiñ ak cantu jëf cantu xol mooy nga yég ne xéewal gi la tax di sant ci yàlla rek la bàyyi ko fu mën a jaar dafaa jaar waaye ci yàlla rek la bàyyi ko yàlla rek mën a jariñ moo mën a xéewale nit yéeg-yéeg boobu ci sa xol mooy cantu xol cantu làmmiñ mooy nga tagg sa borom tudd cant gi ni ñu koy waxee ci alhamdulilahi rabbil alamin wala yeneen yeneen anam goo ko mën a waxee jublu ca cant day tàbbi kon centuk làmmiñ centuk jëf nag mooy xéewal ga sun doon defar ba tax ngay sant xéewal ga lépp nga jariñoo ko ci luy gërëm loo yàlla loolu ab sart la cant boo xam li fekk amut cant ga ma tudd mooy xéewal ga su defal na ko jëfandikoo ci luy gërëm loo yàlla moo tax man dinaa sant ci samay xalima ci di bind di ko firndeel waaye de sant ci sama yaram ci jëf nawaytu shukrahu la daa daari wa inda tuubaaya bi jismin wa qilam kon day mel loolu dafay dëppoo ak gis yu Cheikh Mouhamadul Fadil ndax ku ne xam na ne Sëriñ Tuubaa bi ñu koy door a digle tàmbalil ko boppam ca njaareem mag ñi kenn ku nekk da ko daa defee fa nga ne su bis ku ne fa nga ne fa nga koy màggale dundal ko ni ko ni ko sëñ bi santaane ci sant jaamu yàlla ak bernde waaye ne bi Cheikh Mouhamadul Fadil doom yi Sëriñ Tuubaa nag ba am ab diir la ko woote nag nee nañu daje fii ci Tuubaa di ko fi di ko fi màggale kon lam wax wax naal sant sama dëkk bi Daaru Salaam sama Tuubaa gi kon day miin loolu firndeel dinaa la sant it nee na na ma sama borom it ci jëf farata yi ak jëf sunna yi ci ñaari barab yi di Tuubaa ak Daaru ak ci Daarul Minam nawaytu shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daarati minan yéene ko sant ci lépp loo xam yàlla daganal na ko te tànnal ma ko te na ma itam wammatal na ma ca loola tono nawaytu bi kulli ma abaax waxtaara lii waxaada lii eh, lii waxaada rabaax mu ne kon daal la ma doon yaxantu muy liggéey boo doon liggéey sama borom tono woo naa ca tono gu ma sëkk ca sama tumuraanke ga waaye itam maa ngi sant yàlla mi nga xam ne mooy taaru ji fii ci sama suuf muy Tuubaa ak rabixtu fi tijaarati fii xurbati wa askurul jamila inda turbati wax ne fas naa yéene saxal yàlla saxal sant yàlla ba kër ma tàbbi aljanna saxal sant ba kër ma tàbbi aljanna ci lu muy ànd ak genn waru wala genn noonu udiimu udiimu shukrallaahi lil jinaani bila taxarrurin wala udwaani kon loolu mooy cant gi kon na ko ñëpp waajal ñoo xam ne lépp jaamu yàlla lañ ko jax def mooy jàng alquran jàng xasaayid tudd yàlla salaatu al nabi bernde fexe ba lépp sell bañ cee def genn mooy yàlla ñi ñëw it yàlla na sunu ban teg leen ci yoonu jàmm ñu ak seeg jàmm dellu ci jàmm te màggal màggalin wu dëppoo ak ni ko Sëñ Tuubaa digle te suñ ko def yàlla na ko sunu ban nangul te yàggal fi lool sunu kilifa yi ci sunu kanam dëgëral leen ba ñu àggale seen yéene bàkk seen xadim yàlla na sunu ba mbool dimbali mbool defal xiir nu ci ñëpp te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa te mu nangu nu sunu taalibe wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.